coow li coow li coow li coow li coow li du Babacar xaw ma Sédima Babacar Ngom Sédima coow li coow li coow li coow li état du Sénégal bii nga xam ne moom mooy saytu suuf bi di ko caxat caxatee di ko daggti di ko jox borom barke bitim réew ak borom barke biir réew te di xañ sàmmkat yi di xañ béykat yi seeni suuf coow li coow li loolu la de te bu ngeen xoolee waxtu yi paase fan yi paase. dafa mel état bi day ñëw naan waaw dafa am daay man maa koy fay man maay pompier fekk ne daay ji état du Sénégal moo ko taal loolu mooy dëgg daay ji état du Sénégal moo koy taal ndaxte Babacar Ngom bu amee délibération ana état Babacar Ngom bu amee bail état Babacar Ngom bu amee titre foncier état il faut pas qu'on se trompe de cible état du Sénégal ni muy saytuwee suuf bi moo baaxul lu tax ñu wax loolu mooy vous ngeen demee domaine national domaine national n'y a pas de ñaari ne euh, domaine des terroirs et domaine euh, zone zone des terroirs ak zone pionnière ci état du Sénégal dafa waroon jël yi ne domaine national mu si n'y zone urbaine zone classée, zone des terroirs, zone, zone pionnière. Zone urbaine, mooy fi kër yi commune zone classée la zone yi nga xam la comme classée zone qui est waaw pour mbiru rek la àll euh, euh, zone euh, zone pionnière zone des terroirs c'est si béykat yi foofu la ñuy dëkk foofu la ñuy sàmm foofu la ñuy zone pionnière mooy zone yi nga xam ne mun nañ ko ubbil investisseurs yi état bi dafa waroon jël ay décret pour domaine public domaine national plutôt mu ràññale zone yooyu lan moo tax 1960 ak léegi kenn mënul jël décret yi nga xam ne moom la ñu waroon jël pour def cette délimitation là xam ngeen lu tax pour di ko caxat caxatee pour diko ko daggat ngir borom barké bitim réew borom barké fi donc motax ñu né c'est la responsabilité pleine et entière de l'État du Sénégal mi nga xamné mbir mi mel noonu moko gënal affaire yi baña lèr leer waaw nga jël fi nga jël fer waye bu defoon lolu xeyna fofu ñu jox Babacar Ngom Sedima d'accord duñ ko fa jox ndaxte dañu naan fi zone euh, euh, euh, zone terroir la zone des terroirs la li xew nak nengler ak Djilakh légui nak Babacar Ngom Ben, état du Sénégal na dello soufou waa Nengler ak waa Jilax ba mu set ñun provisoire de ñun dégguñu nasaran provisoire mënu dugg fi na dello si ba mu set et définitivement état du Sénégal le wax na à soufou waa Ndingler ak waa set wetch, amul ay pour nawet bi la amul pour ñenti weer amul pour at la nako dello définitivement sinon ñun la amal affaire. ñun waa aar li nu bokk non lànk ak doy na définitivement ñaareel bi mooy Babacar Ngom na na yóbbu état fa mbaxana doonee benn ndaxte état ci matadiwam ci ñàkk fullam ci ñàkk faydam ci bëgg xaalisam ci ñàkk jiital njëriñu askan njëriñu réew moo def li nga xam ne waru ko woon def li xew Ndingler ak Jilaax nag am na fu nekk ci Sénégal moo xew ki Kiñaabuur moo xew Géréo moo xew bala bugg ca Ngéeñeen moo xew Kër Sambakan ñu ngi nekkoon ci suñu marché bi waaye itam moo xew ca sànjara moo xew jam ñaajo moo xew Sañ Bambara moo moo xew Sendu moo xew loon moo xew Dodel ak Demet moo xew ca Medina Wandifa fële ca Sédhiou moo xew ca Bambilor moo xew ca Kër Moussa moo xew ca Morolan waa Morolan ñu ngi fi woon démb ñu ngi doon daje heure bii ak ñoom démb Moi, Je ca tefes bi yëpp moo xew kon sénégal Nous avons sédiments sédiment 225 hectares 50 <laughs> 000 hectares de Chamban, 5 000 hectares de boxol 10 000 hectares de Fasungom, 3 000 hectares à kusanar 1 600 hectares de maka Banta, 800 000 hectares de saraya banda fas et ak tombokoto région Boukédougou. 10 000 hectares chez Dadel et Demet cinquante hectares la région Boulouga, 20 000 hectares Linger. Je continuer liste bombe foncière la sédiment c'est un problème structurel mais c'est un problème général ñun nous li que nous langue fépp fu am béykat ci Sénégal te ñu nangu seen suuf nañ leen ko delloo ca Ndingler ak euh, ca Jilax waaye fépp fi ma lim ak fépp fi ma limul benn ñaar nañu suspendre nañu taxawal nañu dàkkal joxe suuf yi ñuy joxe ndaxte mbir mi lëj na lëj joo xam ni foog ñu làkkati voilà nous ñoo les leneen parce que bu ñu joxaatee leneen saay ça y, d'accord bu ñu leen toogee seetaan ñu continuer di maanaam di joxe mbir mi dina gën a lëcc donc nañu suspendre nañu dàqal nañu taxawal joxe suuf bi muy ñaar ñett ni wa aar li nu bok doon wax naan nañu def un audit des contrats sur les ressources minières contrat gazier contrat pétrolier nañu def un audit foncier <laughs> ñu xam ñun lu ci déssé ci souf ñu xam lan lañ joxe nous kan lañ ko jox ak ñaata lañ ko jox ñun ñii di dund ñaata moo ñu dese ñu juddoogul ndax dese nañ suuf ñu def audit foncier ak donc troisièmement audit foncier ñetteel bi délimitation des zones du domaine national wax naa ko fi sànq parce que zone bu nek boko délimité amna lo xamné xam ko fa def bo waxé li zone des terroirs la ah mënoo fa def investissement day lèr nañ bo waxé li zone classée la dans la ci forêt xawma forêt classée bu Mbaaw wala forêt classée bu Koussanar wala forêt classée bu Touba Toul budé amna ak ñom seen ñentel bi wala ñettel bi na am code foncier amul code foncier lu tax 1960 ak légui amul code foncier tey jii nii policier bu la ne prip nga ne ko policier bul ma arrêté feu rouge bi dafa vert moo tax ma romb mu wax jëm kaw jëm suuf ah waaye code foncier bu amulee banditisme foncier lay jur vampirisme foncier lay jur parasitisme foncier lay jur accaparement foncier spéculation foncière maanaam fu amul règle yu leer banditisme wuyu yi sàcc yi fa la ñuy profité dugg waaw aaki moom suuf bi di ko wanteer ak ñoom seen ba pare foog mu am réforme agraire waaw ndaxte suuf si ni ñu ko séddalee lu ci bëri jaarul yoon bu ñu defee audit ba pare foog mu am réforme agraire boo xam ne dañuy xoolaat mbir mi en fait suuf si naka lay naka lay tëddee